weeru safar bi ci màggalu Sëriñ Tuubaa gi bis bi ñuy waajal nga xamni moy suñu lepp lépp ndax ci bis bi le Sëriñ Tuubaa defal la defal loo xam ni mënuñ ko koo fay daf ci la ñu defale lu nu jom ñu murid mo gën ci ñun benen bis budul dul ngeen ñew fii di ma siyaare naa ci lool universel Bassirou Ka ak waa Tivaouane Pël maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di nuyu nuyu bu tëdd yow day da jëmm ju baax yoo xam ni li nga wax ci man léegi lu ko raw a ngi ci ci ci yar ba ci woyof gi ci nuroo sunu sang ba ci xol bu rëy ci nangoo jëf li ab cantaakon màndargawoo lépp luñ koy buñ buñ koy xool dañ koy gis ci de day ba ma xamee ak yow ba léegi dëgg yàlla loolu rek laa xam ci yow ku mën a rafetal sa diggante nga ak àddina bi yëpp waxuma sax man rek mais àddina bi yëpp ndax ma ngi gis lu bax li ngay def ci bir rew ya ngi jox nit ñi suuf ñuy man mi wax ak yow sax jox nga ma suuf ya ngi ya ngi ya ngi ya ngi dimbali ñi nga xam ni japp nga ni dañoo yeyoo ak dimbali loolu nag boo ko defee ñun nga sagal ndax suñu sang ba day yërmandew jooju rek ñu nekkoon ak jàng te sangam ba moom Serigne Saliou nee na moom kenn ëpp ko yërmande ci jàmm mhm. kon boo melee noonu yor doxinu sàlloo jëmee ko ci doomu aadama jëmee ko ci ñun sunu yi nga jàpp ni ñoo fi toogal sëriñ bi kóllëre googee nga amoon ca moom mottali nga ko ba mat sëkk ci ñun mottali nga ko ci Seydina nga xam ni ci moom nga jokk waaye mottali nga ko ci man nii ndax boo jox ko ci naa ci man nga jokk kooku moom maa ngi moom benn lañu mbir mi mbir mi lenn la maay kilifaam kon boo jëfee lu mel nii rafet na ci ma seedeel ko bokki taalibe yëpp ci doxin rafet lii nga def dafa rafet def nga lu ko mate def nga loo xam ni ñëpp war nañ koo roy ndax roy da roy lu baax te ci lu baax loolu rek nga nekkee kon maa ngi lay sant bu baax sunu sag nga sunu tiitar cantaakoon yëpp lu baax la ñuy wax ci yow musuma nit musula ñëw ci man wax ma ci yow loo xam ne du noonu xanaa wax ju baax rek Basirou Ka day dimbali nañu Basirou Ka defal nañu nangam Basirou Ka defal nañu rek ngay dégg loolu nag yàlla na la suñu borom gën a kattana. amiin la cat te gën la ko man loo. ba sa yéene ci ci ci doomu aadama yi sa yéene ci liggéeyal sëriñ bi nga matale ko waaw ak taalu bi rek moo jar am moo am solo nit day dafa lot te sëriñ bi rek mooy sëriñ bi li nu wax nun mooy teg suñu tànk fi nga xam ni fa la ko sëriñ bi tegoon sëriñ bi nag ak njaam rek la wane wanewul leneen li mu am li muy rëy rëy rëy doon jaamub sëriñ Saliou di ko doxe di ko waxee di ko jëfe moo ko àggale fii mu àggale sëñ Béthio li ko dàqaloon ci wax yi sax mooy boo ko nee jaamu sëriñ Saliou booy woykat yi xam nañu lool boo koy woy ba ne ko jaamu sëriñ Saliou da ngay gis ni muy yëngoo da ngay gis ni ak njaam rek a ko ñor taalibe googu moom moom moom te wolof lépp na ko loo doonul ab taalibe mënoo doon ab sëriñ waaw mm-hmm. kon bi googu rek moo jara am nan koy sàkku di ko wut di ko xeñtu ndax moo ñuy jariñ moo ñuy jariñ fii moo ñuy jariñ bu ëllëgee ñun nag loolu mu mel na ni mucc nañ ci sax ndax am nañu kilifa muy Serigne Cheikh mooy Serigne Saliou ci ñun di Serigne Béthio ci ñoom moo yàgg naa ko wax nee naa leen bu ma nee Serigne Cheikh rek nangeen dégg ci biir ni maan sëñ Béthio laay wax na ngeen dégg ci biir ni sëriñ hmm. Saliou laay wax ndax ñun mooy suñu bunt ci Serigne Saliou te mbirum sëriñ Saliou day wëy du taxaw mukk te noona rek lan ko àtte kon ñun taalube googu am nan ko ndax jël nañu suñu bopp jox sëriñ si te liggéey ba sëñ suñu sang ba daan liggéey ci daara yi muy ci dongo yi muy muy muy liggéey boo xam ni moom Serigne Saliou daan na ko digal ci liggéey boobu rek ci lañ loolu la ñuy wóyal ba bëgg na kon nag na ngeen xam ne euh, lu dul ak taalu bi rek am na maa ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal nag waaw di ñaan ndax mel ni yéen kat ñaanal leen muy ñaanal suñu bopp rek ndax yéen de mbirum sëñ Béthio rek leen ñor li ci jàngal mooy yow mbirum sëñ bi rek la ñor nag. mooy li mat a am kon maa ngi leen di sant bu baax di lu àddina ji nga xam ni jox na ma jox na ma koppar yu bari nag wii ci bunt bi it nee nañ ma yaa ko yaa ko fi indi maa ngi ñëw léegi xool ko waaw xam naa ni nag yi nga fi indi yow moom nagu rafet rek lay mën a nekk ndax nagu yéene lay doon nag yëpp day ca taalib yi rek ku fi indi waaw du tey rek nga ma ko mas jox na saa su ne yaa koy indi lu xew nga indi sa àddiya barki démb ci 17 avril bi rek ñëw nga indil ma sa àddiya yàlla na nga ko gën a man sëriñ bi fulal la ko te loolee mu diggee ci àddiya yàlla na dal sa àddiya yi nga ci barkeb sëriñ sa jaa ngi